bi di xasida online Touba Monde bi bis bu ne eh, bu li ko dalee altine jàpp ba ajuma ci bu juróom-ñetti waxtu jotee eh, kon ñu bàyyi leen ak ki nga xam ne moo di Serigne Modou Mbaye Thiam ci xarala gi mu wéy ak yéen ci seen jotaay bi nga xam ne moo di Makaarimal Axlaaq ngeen di ci ànd ak Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil جميع الناسين صادقين واجعل جميع صادقين فائزين واغنا يا ربنا بالخدمة للمسلمين أبدا ورحمة rajo xasida online Touba Monde bi asabillah bismillah inna walillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taaliba yi yéen ñi ñuy déglu ci Touba Monde bi ci seen rajo xasida online tubaa Monde bi nekk fii ci Touba Italie kàddu gi di bàyyi ko fii ci Touba Milano ci studio Serigne Mouhamadul Mountakha Mbacké ibnu Cheikh Mouhamadul Basir ñu ngi leen di nuyu ci seen émission bi ñu tuddee Makaarimal Axlaaq di waxtaan woo xam ne dañ leen koy defal bis bu ne bu juróom-ñetti waxtu jotee ci ngoon ki leen koy defal di seen mbokkum taalib Ibrahima Xalil di beral cant ak ngërëm ki nekk ci wàllu xarale gi sëriñ Serigne du Mbaye Thiam bay Fall sequ ak naatu nattangoom Serigne Ibrahima Ndiaye nekk ci Touba Janwar seen waxtaanu tey mu bëgg koo jëmee ci wàllu waxtu ngir bun delloo ci mbindam sëriñ bi rawante na ci téere boobu mu tudde Masaalikul naan mi ngi fay leeral di wax ne waarxabul ashyaa lil amwaati raddun ila dunia maal xayaati walaw suwayatan faxat li yacmalu saalihatan tanfaahum in xafalu faxtani man baaqi umrin xat mada bi xayri taatin walal xayrin hada xabla fawaatihi wala taxful abad anil muraaat li baatinil jasad wa kun uqiyi daabital xawaasi fi kulli waxtin xaafisal anfaas li anna kulla nafasin min rajulin jawharatun nafisatun lam tanjali yumkinu an yashtariyal kanza biha wala yettanaaha xayruhu fantabiha mu mel ni kon gannaaw ñi faatu siin it jépp mooy del ci waat ci àddina donte sax ab saala ngir jëf fi lu baax loo xam ne buñ delloo dina leen mën a jëriñ kon ñun ñi sun borom baaxee ñuy dund war nañoo profitoo ba sunu dund gépp nu jeexal ko ci topp yàlla buñ seetloo ci biir dénkaanam itam sëriñ bi moom waxut bis waxut weer waxut ay waxtu waxut ay at waaye moom noo doom aadama la wax te kenn kon xam na ne noo ko doon këlgin matut sax ay simili matut sax ay seconde gannaaw nag moom seconde bu ne sëriñ bi dafa wax ne na nga koy waxtu nanga koy wattu ndax benn seconde li muy néew néew moo gën a rëy urus moo gën a rëy xaalis moo tax mu ne fii kulli waxtin xaafisal anfas li ann kula nafasin mu ne benn noo gu ne min rajuli jawharatun nafisatun nee na wurus wu seer la kon kenn ku ne xam ne ne wurus ni mu seere bu ko sëriñ bi dee nattale ak noyeeg doomu aadama kon war noo xoolaat suñu bopp ba tax sunu dund ñu di ko sakkanal sunu dund itam ñu di ko xeet waxtu wu ne ñuy seet li nga xam ne moom la méngool ñu di ko jox. makaarimal axlaaq makaarimal mel ni tam pour yi nga xam ne moo ci topp. li sëriñ bi wax ne ixlaa abdin nafasan min yi yujib xasratan lahu fi saa ne ne doomu aadama bi day nooyi gum nooyi te noyyi ko ci ak topp yàlla donte sax defu ci ab safaan waaye da ko nooy noonu rek mu dem ñeneen loolu day bu ëllëgee rëccute la koy jural kon war ngaa fexe ba noo gune mu ànd ak ak topp yàlla ngir bépp noo boo xam ne doomu aadama noy na ko te àndut ak topp yàlla sëriñ bi ne na loolu de ba ëllëgee rëccu lay doon ndax day doon barab bu witt boo xam ne mënan nga faa def lu lay jëriñ mun a amma isa axlaytaha fil ma'siya fa zaaka xusraanun mubinun fadriya amma bu fekkee nooy gi nag danga ko def ci ak mooy yàlla wal iyaasu billah na loolu de moom perte nga lay jur ëllëg perte nga woo xam ne gu fees lay doon gu biir lay doon kon kenn ku nekk ci war naa fonk waxtoom war naa fonk ak dundam war naa fonk ay nooyeem ngir bañ a dugg guddal gannaaw waxtaan wi dina am yéene ànd ko sunu sëriñ di sëriñ. Touba Monde kenn ku ne xam ko ci am njàngaleem kenn ku ne xam ko ci. ak leeralam ñu bëgg ànd ak moom ngir mu gën faramfàcceel lan mooy njëriñal waxtu gën moo faram-fàcceel lan mooy waxtu gën noo faram-fàcceel nan la ñuy war a dundale sunuy waxtu kon nu jox Sëriñ Mbàkke Abdourahmane mu nuyoo bu nuyoo ba noppi incha allah ñu dugg ci li nga xam ne mooy wàllu liggéey bi kon sëriñ bi bismillah bismillahi rahmaani wa sallallahu taala wa sallam ala sayidina muhammadin wa wala mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu nuyoo lislaam bu am solo boobu wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ mbàkke abdurahmaan ginnaaw bi nga nuyoo ngir jëkkanteeg waxtu sunu laaj bu njëkk lan moo di waxtu waxtu mooy dund loolu la boroom xam-xam yi di wax al waqtu huwa xayaa loolu rekk waroon naa tax nit ñi di ko bàyyi xel ñu bari ci noonu nag umpale nañ ko waaye lu rëy rëy la mën nañoo wax ne mooy capitalu nit bi nga xam ne su ko xasee ñàkk ñàkk na lépp ndax lu waay réalisé ci kaw suuf waxtoo la ko may ku am ngërëmul yàlla waxtoo la ko may waaye nag lu waay ñàkk it waxtoo la ko xañ kon am solo gi foo ko takk wee na góor yàlla yi ngeen di dégg yépp seen liggéey yu rëy yi ci biir waxtu rek ndax mooy ndab li fi nekkoon ñu di ci jëf lu ñu am moo leen ko may yi nit am yépp waxtoo ci gën a rëy moo ci gën a cher ndax moo la ko mën a may nit sunu borom da ko bind mbokk yi ngir mu nekk xalifa ci kaw suuf nekkal fi yàlla di jaamu di dundal suuf kenn ku ne it rol la bi yàlla gàll ci saw loos ngir nga war koo dund ci kaw suuf si lu toll noonu ci waxtu la la borom bi jox nit ku ne war naa yëg ne amut ci waxtu lu mu war a sànk li tolloog sa dund moom nga am ci waxtu benn minute boo ci sànq rek sa warteef nga sànq boo xam ne bu ëllëgee dañ la wàññi dara waxtu yooyu nga fi am saa bu jeexee nga daal di génn àdduna loolu baax na kuy dox ku ne xam ko kuy dund ku ne xam ko loola taxoon al imaam al xasanul basri rahimahullah daan wax ne yow doomu aadama na nga yëg ne ay bis yu ñu dajale nga ay bis yu ñu dajale nga benn bis bu jeex ci yow ab justu ci yaw jeex na su bis yi jeexee nga jeex na aadama innama anta ayyaamun majmuuca fa ida mada yawmun faqad inqada baadu loolu imaam xasan basri moo ko doon wax di wax am solo nit kon nit àdduna mooy waxtu dund gi mooy waxtu bis bu ci jàll rek benn justu ci yow ñàkk nga ko boo xam ne dootu dellusiwaat loolu mooy waxtu mbokk yi kon mooy nit mooy àdduna ku bëgg a tekki ci ngay jaar ba tekki waaye it ku sànk ku ne waxtoo la sànk ñàkk koo jox cëram wala sàggane ko wala xañ ko àq yim la ameel yi ko ameel mu am solo lool nag am solo goo xam ne moo tax waxtu wu nekk war nañ koy fàttali war nañ koy bàyyi xel. Serigne Mbacke lan moo ca jëkk. njëkk mooy dafa am fu mu yam nit ki dund bis yi di jàll day jàpp rek ne bis amul fu mu yem loolu raw tey boo léegi mën koo dabu déedéet waxtu mbokk yi dafa limité am fu mu yem kenn ku nekk am na ci cër boo am boo xam ne lu mu yaatu yaatu cër boobu rek nga ci am su jeexee moo xam li nga waroon def def nga ko danga dem moo xam li nga waroon def defoo ko da dem. wa li kulli ummatin ajal fa ida jaa ajaluhum la yastaaxiruna saatan wala yastaqdimuun loolu xeet lay wax waaye nit ku ne yaa ngi ci biir kenn ku ne am na bis yoo xam ne ci àdduna moom nga fi war a nekk am nag luñ la fi sant ne la ci biir bis yooyu na nga fexe bala ngaa dem nga def ko kon amoo ci temps lu doy wala lu des looy sàgg looy sàgg su waxtu wa jeexee faw nga dem moo xam daf nga liñ la doon doyee moo xam dafoo beneen bi ci solo mooy du lu ñuy remplacer waxtu bu xasee jàll jeex na ñàkk nga ko la yoxa woon lu ne ci àdduna mën nga ne su ma ko ñàkkee dinaa ko lijjanti ba jot ba mu des temps temps bi nit xas am bu la xasee jàll jeex na kenn mënu koo dabaatal du dellusiwaat it nag ñu bari ci ñun dañ koy umpule bis yi nit ñi def nit da ko tër rek wut ko ay tur wutal ko ay tur naan tey la dibéer ba mu nee ba jàgg ñu naan bu dibéer ci dellusee dibéeri tey ji mbokk yi du dellusi tey bu xasee jàll jeex na lu la ci waroon te defoo ko bis penc lay lay lay teere waaye jeex na jeneen bi bisay ñëw ñu tuddiwaat ko dibéer waaye du moom booba it am ay warteef yu la ci war yoo xam ne soo nee naa ci dabaatal la ma weesoon bële moom itam lal la ci waroon nga ñàkk moo tax saa bu nit ki sàgganee ba dara raw ko ndax xam ne bis booba perte na ko ci dundam lu mat di xam la bokk na ci solos bis mbokk yi seere la bis benn ci xam ngeen ne ñu baree bari dañuy seere nit say cër ci la bokk yawma tashhadu alayhimu alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kaanu yaamaloon suuf si nga toog di ci jëf ñi lay seere ci la bokk waaye bis da lay seere bis bécc loo defoon ci moom loolu la imaam Xasan Basri nettali woon wax ne am na ñuy wax ne xadis la waaye wax imaam Xasan Basri la moo gën a wér amul benn bis buy fenk lu dul dana am aji woote ji woote wax ne yow doomu aadama ji na nga xam ne man mii di bis bi mindeef mu bees la sa jëfit lay seere bu ëllëgee loo def ci man bu ëllëgee dinaa ko seere fexeel ba bala maa dem ma yóbbaale la dara su ma demee kat du ma dellusi ba bis penc ci dootoo ma gisaat maa min yawmin yanshaqu fajruhu illa wa yunaada yabna aadam ana xalqun jadidun wa ala amalika shahid fa tazawwad minni fa inni ida madaytu laa audu ila yawmi alqiyaama loolu boo ko yëgee ak boo ko yëgut bis bu yàlla sàkk ci lisaanu xaalam moom bis bi dañ la wax loolu maa ngi doon gan si yow bu may dem mënu ma ñàkk yóbbaale dara te lu ma gis ci yow nag bis penc baa danaa ko seere ci kanam sa borom fexeel ba su may dem yóbbaleel la dara jullit bu ne na yëg ne saa bu bis fenkee dana la wax loolu boo ko yëgee boo ko yëgul moo taxoon imaam Junaydi raisu suufiya rahimahullahu wa radiya anhu daan wax ne na ngeen wattu seeni waxtu ndax du taxaw day dem te bu demee dootu dellusi ihfadu saa'aatikum fa innaha zailatun gayru rajaa na ngeen sàmm seen waxtu loolu la doon dénk taalibe yi nga xam ne ñoo doon sóobu yoonu suufiyanke na ngeen sàmm seen waxtu xam ne waxtu la woo xam ne taxawut day dem te bu demee du dellusi kon sa xel bu balaa dem léeg la ci waroon nga def ko ci. ndax waxtu mënees na koo denc. kenn mënti denc waxtu ngir ne bu ëllëgee ma def ci mu ci waroon def moom buy ñëw day dem rek du taxaw boo defee mu dem boo defut mu dem. kenn mënu ko téye te kenn mënu koo denc fenn ngir boo liggéey. ndax waxtu dina widd. waxtu du widd mbokk yi saa buy dem il faut mu yóbbaale la dara boo ci defee li nga waroon def mawxif la dana ko bind yóbbaale la ko boo liggéey mu seeral la ko boo ko defutit ñàkk a def mawxif la boo liggéey dana la seeral ne ak salbiya ñëwoon naa ba jàll la la waroon ci yow bis boobu dara defoo ko ci kon waxtu widd bis bu demee. ña waroon a bind bis booba lañ ca def bind nañ ko moo xam dangaa def wala dëppoo ñàkk def ak taxawaay la taxawaay boobu ñuy bind ndax ki waroon def su defut am na àq duñ koy topp boo ëllëgee. Sëriñ Mbàkke ndax waxtu ñëpp ko tollale wala am na ñu ko ëppalante. ñëpp ko tollale yi nit ñi ñi ngi rawantee ci nuñ mën a jariñoo seen waxtu kenn dundul ci àdduna amul bis bu gën a gudd bisu morom waaye ci yi gis ngeen ne. bis bu yàlla sàkk nga gis ñaar ñoo xam ne da nga naan ñii xanaa seen bis tolloowul pourtant ñoo tollooy minute ñoo tolloo heure yi waaye njàmbaarug nit ki ak xam waxtu dana ci réaliser loo xam ne da ngay defe ne xajut bis waaye yaa fu sum nit bis dana jàll ba rëy mu defe ne bis bi dafa gaaw fekk yaa fu suma rek bis bi gaaw ba yàlla sosee àdduna ba nëgëni bis yi li ñuy toll noonu lañ tolloon yitte nit moo koy yeexal maa mu gaawal jàmbar ju ngeen fi dégg bis yi ñuy dund ci la doon dund ba réalise li mu réalise amee yitte roy leen mën a sottal dara boo ñàkkee yitte doonum yàmbar doo sottal dara waaye bis moom vingt-quatre heures yi mu doon rek la loolu lu ma ta xam la mbokk yi ñépp ko tolloole dana sakkan waaye dana dana xeebu sakkan bi mooy nga xam ne waxtu la nga seere ko lim laaj nga jox ko ko buy dem fees dell ak yiw xamoo loolu nga sàggane ko buy dem du la yóbbaaleel dara ma waral ñaari nit teew kii bisam fees dala ki kii bisam buy dem du yóbbaale dara waaye buñ jàpp mukk ne kenn ki daa gën a gudd la bis ba tax mu man ci lu kenn ki mënul bis yi moo tolloo ci kanam yëpp borom bi it wax la ko ñoroon lool bàyyi loo na ko xel jaam yi ba tey xaw ma jaam yëg nañ ko wala yëguñ ko waaye borom bi waxtu wu nekk ci alxuraan ngeen gis luy firndeel ne waxtu ñor na ko bëgg na nit ñi bàyyi ko xel bokk na ci lim ciy giñ ni bare heure bu ne borom bi subhanahu wa taala daanaka giñ nit ci ngiñul yàlla buñ jàpp ne baat buy romb la rek daa tànn waxtu noonu giñ ci dafa bëgg nit ñi bàyyi xel solos la foofu muy giñ waxtu yàlla giñ rek da wane na lu am solo la lu mën a jariñ nit ki la waaye loo ko mën lor la wal asri giñ nit ci wal layli nahaari wad duhaa wala yaalin ashr wal fajr yëpp ay heure la giñ googu borom bi di giñ di saxal ak doon gum doon benn ak moom gum moom jaam ñi war nañ caa déggee ni waxtu dafa am solo ci suñu borom kon dund jullit waxtu lu ci rëy la bu koy sàggane ñu ngi sàggane koom mi gën a rëy ci am koomam borom bi it gis ngeen ñor gu ko waxtu ñor moo tax da ko noslu manoon na bi muy julli lu jaam ñi masalan mën leen rek bis bi na ngeen fexe ba julli juróomi yoon waaye waxu ko dawut ay waxtu yoo xam ne ngir ñu nangu julli gi te waxtu yooye nga koy def kon mi ñuy jàngal organisé wu inna salaata kaanat ala al muminina kitaaban mawquuta li ci des lépp da ko organisé koor mii da ko wutal waxtu bu jotee nga def ko bu jotagut warul la asaka da ko wutal waxtu aj makka da ko wutal waxtu loolu mi ngi jàngal ne yéen ginnaaw li ma leen sant dama ko fixé ci ay waxtu bu jotee ngeen nos ko def ko ca li muy tekki mooy seen dund jëpp yi noonu ngeen war a organiser woo lépp ngeen wutal ko waxtu woo xam ne bu jotee ngeen tënk ko ca def ko ci yàlla ci leneen ab jullit bu xamoon julli ni mu nekkee ak ni mu organisé woo ci bis yi dana ci jàngi organisé wu saa ba ko respecté woo rek dan la jàngal nga organisé woo xam ne leen lu nekk dafa war a am waxtu wuñ ko wutal bu jotee ñu def ko li ñuy tudde fawda muy désordre lu yàqu ci àdduna moo ko yàq li ngay def doo ko wutal waxtu doo xool kañ lay tàmmul doo xam kañ lay jeex saa bu ci saxal nekkee daal nga def bu ci saxal génn nga bàyyi loolu mooy li yàq àdduna borom bi nag ngir bañ loolu moo tax bi ñuy sant jaamu it da ko wutal ay waxtu yoo xam ne boo bëggee ñu nangul la ko danga koy tënk ci waxtu yooyu boo ko defee te ak seegud deesul ko nangu boo négee ba mu weesu nga door koo dafit deesu ko nangu maa boog dañuy bale bakkaar ndax mag ñu baax ni wax nañ ci njëriñal waxtu. Touba monde bi. mag ñu baax ñi wax yu dul jeex lañ ci wax boo delloo ci téere yi danga nga fekk ne ñoom cër yu rëy yam seen borom xam kuñ xamoon xii may waxtu moo leen ko may ñu teel ko fonk jariñoo ko nañ ko war a jariñoo ñoom ñoo doon wax naan al faqiru ibnu waqtihi loolu su fekk faqir jooju firiwut ku ñàkk waaye mooy al faqiru ilallah ab sufiyaan ki ci bu njëkkoon faqiir lañ ko doon tuddee mooy koo xam ne dafa aajowoo jëm ci boromam amul soxla ci àdduna li ci biiram yàlla daal la dëgmal gisul leneen kooku daa war nekk doomi waxtoom moo di ne waxtu nit ki ni muy fonke way juram ni mu koy joxe cër ni muy tënkoo ci ay ndigalam ni mu koy bàyyee xel noonu la nit war a mel ci waxtu loolu la sëriñ bi doon tënkal ci bay jëm waxoon ne fa saadiqul muridi man yanqalibu bi xukmi waqtihi wala yartaqibu amaamahu waqtan murid saadiq boobu mooy alfaqir maanaam waxi gaa yooyu la tënk foofu ne murid saadiq dëgg mooy koo xam ne waxtu jamono ju nekk la jamono ja laaj lay nekk du sàggan ba waxtu weesu mu cee dabaatal nga xam ne boo ko laajee dalay wax ne lu ma waroon def démb lay def tey la ñëwagut it xamagut lu cay xaw ndax ak seegut kenn toggugu ko jëf kon du ko waajal fi mu toll daal ci lay tënk léppam dana fexe ba daal waxtu wi mu toll lu waxtu wi laaj dana ko ko jox loolu mooy fasaadixul muridi man yanqalibu bi xukmi waqtihi wala yartaqibu amaamahu waqtan loolu mooy wax ji gaa ñi waxoon ne alfaqiru ibnu waqti saa bu waxtu woo nekk am na lu la ca war am na lu lum soxla fexeel ba loola lépp nga tënk ci sa dund bu jàllee mu jàll leneen ñëw nga jox ko leneen waaye bu nekk ba waxtu jàll ngay dabaatal la ca waroon lu ñëwagut it bu ko bàyyi xel bàyyi lu dul bàyyi xel ak waajal ko waaye fi nga toll moom am na lu la ci war loo xam ne fexeel ba tënk ci sa waxtu moo taxoon Cheikh Ibnu la borom xikam daan na wax ne nit ki li ko war mu ne damay nekk ba am jot door koy taxaw képp koo xam ne yaa ngi dund loolu na nga yëg ne feebari bakkan yi ne ci yi dal gàllankoor gaa ñu baax ñi gàllankoor na la maanaam yi nga xam ne gaa ñu baax ñi bu njëkk moom la njëkk saafara ñu koy tudde ru'unaatun nafs bon bon yi bakkan sikki bakkan bokk na ci sikki bakkan Cheikh Ibnu Afaa lay wax koo xam ne li ko war ci ay jëf danaan su ma féexee laa koy def bu nit xamoon boppam xam ne du féex ndax waxtu wu nekk la ca war soo ko defee doo féex te waxtu amul ci àddina woo xam dara waru la ki xamut boppam rek mooy jël waxtu jàpp ne fi nii dara waruma mu toog defut dara waxtu wu nekk am na ci sa digg ak sa borom sa digg ak sa bopp sa digg ak sa moromi jàmm loola ci war la war a taxawee loo xam ne boo ko xamee doo am jot kon moo tax mu ne ixaalatuka al amala ala wujudi al faraag min ruunaati nafs bokk na ci sikki bakkan bokk na ci bon boni bakkan yi nga xam ne yu nit ki war a saafara la koo xam ne li la war da ngay naan damay nekk ba féex damay nekk ba am jot damay nekk ba nangam Umar euh, ibn Abdul Aziz mi gaa yi tudde xaamisul xulafa rachidin moo doon wax ne bi ma ñëwee jamono fekk naa fi ay gaa ñoo xam ne kon taabion yi mu fekkante woon la doon wax fekk naa fi ay gaa ñoo xam ne niñ xëre woon ci seen waxtu moo raw yéen ni ngeen xére ci wutum xaalis ni leen seen dërëm yi ak seen dinaar yi ñore jamonoom la ko doon wax ña ma gisoon man ñu bàyyi ko cërant bi di ay saxaaba ki taabiwoon la ma fekk waxtu ñore woon leen yéen dëggu leen ko ci waxtu waaye ci xaalis ngeen ko def adraktu qawman kaanu ala awqaatihim ashadd minkum xirsan ala darahimikum wa danaanirikum nga xam ne li ñuy dégg ci loolu mooy kon ndekete saxaabatu rasul ak gaa ñu baax ñëpp seen yitte mooy waxtu lañ xamoon jox ko àqam lu mu laaj ñu jox ko ko kenn du leen seen ñu nekk loxoy neen wala defuñ dara fu ngeen fi gis ku koy def rek xamul boppam xamul li ko yàlla gàlloon ci kaw suuf si Omar waxoon na guddi ak bëccëg yow jaam bi na nga xam ne guddi ak bëccëg ñi ngi jëf ci yow loolu ba tey Cheikh Omar Ibn Abdul guddi ak bëccëg yow jaam bi ñi ngi jëf ci yow fexeel ba jëf ci ñoom maanaam nit ki su ko yëgee ak bu ko yëgul bëccëg bi romb yóbbaaleel na la dara guddi gi romb yóbbaaleel na la dara ci sa dégg sa gis sa cawarte sa kàttan bis bu ñëw yóbbaale ci dara ma waral boo fa yàggee tuuti sa dégg dootu neex say bët dootu neex dootoo sawar bis yi ñoo doon lekk lekk ci yow fexeel nag ñoom bu ñuy jël ci yow buñ la buñ la buñ la fulla buy dem yóbbaaleel na dara fexeel ba sëf ko dara yow te mu yóbbaale loolu la xakim ba waxoon inna al jadidayni ida mastawlaya ala jadidin adniyahu lil bila guddi gi ak bëccëg gi ku njàgg romb loo bees bees danañ xëy xëy rappal la mag ñi jekki-jekki màggat ko ku fi gis màggat ba lu man dañ ko ko manal bis bis ay bis romb na yoo xam ne man naa moo gënoon a sawar ci ay moromam waaye jamono waxtu moo nangu ci moom lam ko joxoon kon nag boo ko yëgee mbokk mi ak boo ko yëgul bis bu romb rek jël nañ ci yow dara soo fi yàggee tuuti mu nangu lépp far mooy tax nga dem ba njikki dootu déggati lay lay balaa gis ay dañ koy dimbali ci ay ay ay ay miyeeb léeg pour mu nopp bu dégg ay écouteur lay lay teg buy dox day wut bant sukkandiku ci loolu lépp ay waxtu amoon na yoo xam ne ajowu lépp gis bi neex lépp léppam neex dégg bi neex waaye bis yi di ko nangu par benn ndax nag fulla la bis yooyu du nangu ci yow yooyu yow itam jëloo ci ñoom dara kon nit ki si bis dikkee jëlal la dara fexeel ba yow itam nga jëlal ko dara moom la Omar waxoon ne inna al layla wa nahaara yaamalaani fiik fa amal na dañuy jëf ci yow yow itam fexeel ba jëf ci ñoom fexeel ba jëf ci ñoom. sëriñ Mbàkke dañoo bëggoon nga indil nu lenn ci màndarga yi nga xam ne day tegte la ne àddina yàqu na. mais bokk na ci màndarga mi nga xam ne àdduna yàqu na mooy sànq wax xëy na ña wax loolu buñ fekkee woon suñu jamono danañ waaru ñoom ñoom lañ tudde woon sànq waxtu agut fii benn yoon waaye nee nañ bokk na ci alaamatul fasaad idaatul waqt fu ngeen gis ñu sànq waxtu xam leen ni àdduna yàqu na foofa ndax waxtu mooy li gën a cher mooy li gën a am solo agoon nañ ci ñoom di wax ne nu ñu war a dundale waxtu ak nu ñu war a fonke waxtu koo xam ne sa tay ak sa démb ñoo yam boo doon commerce xamal ne perte nga nax nañ la nit koo xam ne sa tay ak sa démb ñoo yam nga xam ne góor góorgóorlu ba li nga def démb lépp tay fexe nga ba def lépp boo doon commerce perte nax nañ la nit ci bis bu set daa war a yokk loo def tey bu subaa expérience bi nga ci jëlee tey bu subaa da ko war a jariñoo yokk sa lu baax saa boo xamee ne tey jii liñ ci am ci lu baax moog la nga amoon ci lu baax démb ñoo yem képp perte nga ci sama te dund gi commerce la mbokk boo amul bénéfice perte nga ndax yaa ngi yëngu yaa ngi sonn waaye nee na koo xam ne nag tayam day yées démbam kooku moom maloon la rëbbum yàlla ma war dal ci kaw moom yeewut wut baax moom la waxoon ne man manis sawa yow maahu fahu maxbuun wa man kaana yawmuhu charran min amsihi fahu maloon ndax nit ñi danañ suur loolu bàyyi xel ne ndekete bis bu jàll bu ne war na maa yóbbul lu ëpp la ma démb jàllaloon lu ma def ci lu baax tey bu subaa war na maa def lu ko ëpp su ma ko defut day mel ne dama perte ci sama dund. moo taxoon am ku doon wax ci ñoom naan koo xam ne sa dund da nga koo jeexal saa boo xëyee na nga xëy ay xàq yu la war yooyu fas yéenee faj. àq yi nag mën naa doon sa borom àq yoo ameel sa borom wala yoo ameel sa bopp wala yoo ameel sa moroomi jaam nit du xëy te àq yu mel noonu gàlluwut ci loo sax fexeel ba boo xëyee nga fexe na ko fajee wala farata ju la war ndax àq yi am na yoo xam ne farata lañ am yoo xam ne ak guñ ci farata wala tedd nga joo fekkoon say maam nekk ko tabax ko ba mu jub nga donn ko ci ñoom ameel nga àq war koo yokk waroo koo seetaan ba mu wàññi wala boog sax war ngaa bëgg ngërëmul yàlla wala ngërëmul bàyyi ko jaay sama waramu jaam ngay xóoxóor la ci dof lu ñuy sant wala xam-xam booy sàkku nee na koo xam ne xëy na ba jant bi soo xëyut ci benn ci yooyu su fekkoon ak mbokk dox na diggante nag bis booba na xam ne dog na mbokk ko moom la wax ne man am baa yow man min umrihi fi gayri xaqin qadaa aw fardin adda aw majdin assala aw xamdin xassala aw ilmin aqtabasa faqad àq yawmahu wa a nafsa kon ndekete nit ki su amee bis bu mu xëy ba jant bi soo àq yi ko war ci diggam ak boppam ak boroomam ak moromam bu ci taxawut wala mu woyofal ko rek defut la ko war ci bis boobu loolu bokk na ci war a xam euh, Abdullah ibn moo doon wax naan mësuma rëccu dara rëcc gu àgg ci mel ne bis bu jant fenk ba so mu leer ma ne sama dig wàññiku na te samay jëf yokkuwu nee na lu may rëccu man loolu moo ci raw man daal sañoon su ma sañoon bis bu ñëw ba jàll mu leer ma ne ab bis wàññiku na ci sama dund danaa fexe ba samay jëf yu baax yokku su amee nag bis bu ñëw ba jàll te defuma ci dara lu baax nee na man jàpp naa ne perte na bis boobu ba dama koy rëcc rëcc gu moom la waxoon ne ma nadimtu ala cheyin nadami ala yawmin garabat shamsu naqasa fiihi ajali walam yasdat fiihi amali yonent bi alayhi salaam waxoon wax joom solo yoo xam ne kenn ku ne ci ñun jullit bu ne war na koy teewlu saa su ne mooy nee na noonu na ñaari xéewal a ngi nii ñaari xéewal yu bokk ci xéewal yàlla yi ñi ëpp ci nit ñi xamuñ ko ñu ngi koy sànq ñu ngi koy yàq te xamuñu mooy xeewalu wér ak waxtu wi nga am amuk jot ku yàlla dafa wér gi yaram wala nga am ak jot am temps pour def lu baax te defoo ko am nga xéewal gu rëy goo sànq loolu yonent bi alayhi salaam moo ko waxoon niamataani min niamillaahi kathirun min annaasi maxbunun fihima alsixatu walfaraax ku ngeen gis mu raw ay moromam ñaar yooyu la exploité ba mu amee wér-gu-yaram fas yéene defal ci yàlla loo xam ne jéggi na dayoo ba mu amee jot àdduna jiitalugu ko mu góor góorlu ci lu baax ba liggéeyal bi lu ñuy soow ku ngeen fi dégg ñu di ko yéem ci àdduna ci ñaar yooyu la sukkandiku moo taxoon Serigne Touba radiyallahu anhu moom mi déggoon jamono xamoon diine xam nga jéggi dayoo mu nit ñi ay bis lañuy wax ku sànq bis wala ay waxtu moom ak noo la doon wax weesu na ab bis bu lëm ñëw jàll nga sànq waaye ak noo bu génn ci yow gone danga ko war a contrôler ndax ci lan la génn moom Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu foofu la foofu la àggale woon fonk waxtoom moom da doon wax ne jullit bi gépp noo gu muy noyyi war naa xam ci lan la ko noyyi kooku jëlale na ay waxtu yooyu toog ci nekkoo ci dara wala bis booy toog te nekkoo ci dara ca la waxoon ne yow sama mbokk foo toll na ngay régler sa yëg ci yow say cër na koy sàmm ci waxtu wu nekk di sàmm say noo ndax noon na noo gu bàyyikoo ci nit gu ne mi ngi mel ne wurus bu cher woo xam ne lu ne mën nga ko cee am ci ay alal boo ko exploité jaay ko fi ñu ko war a jaay boo ko sàgganee nag jaay ko foo ko wër te jaay perte ci da ngay perte ñaari yoon ndax ñàkk nga la nga amoon te lan la nga ko wotee jëru ko ci yow lool taxoon sëriñ bi wax ne wa kun uxayya daabita alxawaasi fi kulli waqtin xaafiza al anfaasi li anna kulla nafasin min rajuli jawharatun nafisatun lam tanjali an yashtariya alkanza biha laa yatanaha xayruhu fantabiha moom nee na noo gu ne kooku boo ko seetlu ab seconde mën naa wax daanaka lay tollool sëriñ bi nee wurus la woo xam ne lu ne mën nga ko ci am ndax lenn loo ci def am ci ngërëmul yàlla mooy taxit àdduna ak alaxira kon sa genn noo googu jër sa xel noonu mu réyee nga xaw ne mën nga cee am ngërëmul yàlla waaye noonu nga ci mën a amee mbugalum yàlla ndax mën nga cee def loo xam ne yàlla mere na la ca ku yàlla merum yàlla wàcc ci kaw musiba dal la te lu mat a lu am solo la fexe ba moytu merum borom bi waaye lu am solo la it fexe ba am ngërëmul borom bi ndax ñaar lañ yoo xam ne du yem ci yow ngërëmul yàlla du yem ci yow jaam bi ko bi ko sàkku bu am ko waaye merum yàlla it yow mi ko toggoo ba am ko du yem ci yow am na xadis xudsi bi wax naan ana allah laa ilaha illa ana borom bi wax ne man ma yàlla kenn du yàlla ku dul man ida radaytu baraktu wa laysa li barakati muntaha saa yu ma wàccee sama ngërëm fenn barke laa cay boole sama barke nag amul fu mu yem daay waaye ne wa ida gadibtu laantu wa laanati tablugu saabia min alwalad su ma meree dinaa su ma meree dinaa rëbb dinaa móolu te sama rëbb man yàlla dana topp nit ba ci juróom-ñaareelu sëtam loolu day wane kon nekk nit ki war naa góorlu ci sàkku ngërëm waaye moytu merum yàlla ndax du yam ci yow bu dee ngërëm li dana la weesu topp say sët waaye bu dee meram yàlla it noonu lay topp nit walla billah kon waxtoo ngoog sëriñ bi wax ne wenn waxtu woowu mën nga cee am yi du jeex ndax lenn lu baax loo def mu topp la topp say sëtaat ba ay ay junni at ñëpp di ci jariñu woowu yiw mooy laa laa yatanaaha xayru mooy yiw woo xam ne ngëneelam du jeex moo taxoon sëriñ bi wax ne nit ki am noo koo xam ne da ko génne te andute topp yàlla su ëllëgee aw naqar wu rëy la la jural ndax da nga yëg ne amoon nga koom mu rëy ba noppi nga sàgg ne mooy li mu wax ne ixlaawu abdin nafasan min taa yujibu xasratan lahu fi saa suñu demee bis penc noogu nit nooyi woon fii ci àdduna te ba mu koy nooyi àndut ak topp yàlla su boobaa da nga gis pertement bi mu la jural nga gis ñi ko noyyi woon ci topp yàlla bénéfice dañ ci am da nga màcc sa baaraam di rëccu ne lu ma doon noyyi te noyyi mu ci topp yàlla daan waaye nag su fekkee da nga koo noy ci mooy yàlla moom kooku moom weesu na aw naqar waaye rëccu la pertement la boo xam ne mbugal lay doon ci sa kaw amma isa axlayta fi lmaasiya fa daaka xusraanun mubinun fadriya moo taxoon sëriñ moom li mu doon santaane mooy jullit yi la mu doon dénk dénk taalibe yi na ngeen dundal waxtu ci lan ci farata ak naafi la adduna ñaar yooyu la farata yi la yàlla gàll ci digg mag muy sa digganteeg moom wala sa digganteeg sa bopp wala sa digganteeg say morom bu jeexee farata junne am na ay naafila ci tege jaamu yàlla yël yàlla sant nga di ko defal moom yàlla julleeg woor ak aj màkkaat joxe asaka yëpp am na ay naafila ku ci nekk am na farata am na naafila da nga julli farata di julli naafila di woor farata di woor naafila di aj farata di aju naafila di joxe asaka di farata di joxe asaka joo xam naafila la muy saraxe sëriñ bi ne say waxtu na ko dundal ci yooyu fu farata jàllee naafila moom du jeex te ndollan la yoo xam ne yàlla du sànq jëfi aji rafetal fexeel ba sa dund gépp nga jeexal ko ci ñooyu wa amil al awqaata bin nawafili ba'da al bi bila taxaafuli moom loolu la dénkaane woon ku ku ku jëfandikoo dénkaan loolu doo am ci sa waxtu looy sànq wala looy dugal feneen ndax du waxtu du ñëw nga ne waxtu wi kat amul may def loolu amut ci ci jullit am na yoo xam ne jullit bu xamee boppam du ko du ko rotal ci biiru dundam ak jot su ma féexee su ma nangee. ndax jullit dina feex. makaarimal axlaaq. jullit du feex jullit du am jot ndax waxtu wu nekk am na lu la war benn muy farata mbaa muy lu ñu sopp waxtu wu nekk rek am na lu la war soo génnee farata ji naafila yaa ngi yoo xam du jeex te aw yiw la te yàlla du sànq jëfe aji rafetal kon kenaan su ma féexee wala fi mu ne defuma dara. mooy ne kon xamul dëgg-dëgg lim ki mu doon waaye boo ko xamee doo am jot doo am temps waxtu wu ne yaa ngi ci dara te bu ngeen seetoo nit yàlla ñi foofu lañ toll woon Serigne Touba radiyallahu anhu mag ko laaj ne ko xanaa ne du ma wax ne du ma ko def waaye du ko nekk fenn ñun nag dañuy toog ci barab yi nekk nelaw non seulement waaye dañ koy woo say lal bam jekk teg say ngeganaay léeg-léeg sax nga taal rajo boo xamee di déglu bande bëggoo bëggoo déglu wax ji waaye da bëgg nelaw ñenn ñi àgg ci di naan ay doom Sëriñ Tuubaa moom daf daan kër kër yi di kër kër ba nelaw fekk ko fa nekk du ma ko xaar fenn kooku mooy ki xam waxtu waxtu mooy loolu parce que boo xamee lim làmboo doo ko fa doo ko fayee occasion boo ci am da nga ciy profité pour yokk ci sa yiw ndax yaa nga jëm ci bis boo xam ne du jeex war nañu fàttaliku mbokk yi ne bis benn ci bis dund gudul jeex la te lañ fay consommé lépp fii lañ ko liggéey kon yow war ngaa yëg ne li nga am ci àdduna ci waxtu amoo ci lu doy parce que dañuy liggéeyal lu dul jeex waxtu bu limité nga am mu ne la liggéey ci loo xam ne fa jëm bu ëllëgee limité wu masalan ku ñu ab tool ne la bay gi loo xam ne dund gu jeex nga am waaye nag la la fa yor lépp la la fa yor lépp ci tool bi nga koy bay ku xam loolu doo sàggan doo sàggan ci waxtu doo ko doo ko doo ko woyofal mooy na waxtu walaaj lépp da nga ko jox loolu mooy dund julli kon noonu lañ ko war a fonk waaye nag li am mooy nit ñaa ngi sànq waxtu li waroon am mooy li ñu wax waaye liñ seetlu mooy sànq waxtu la nit ñi def buñ ko yëg ak buñ ko yëgul ci anam yu bari nag sànq waxtu ñaar la ndax waxtu ndab la ndab boo ci defu dara sànq nga ko buñ la ko duy la moom fees nga duy ko mu dégg nga bàyyi sànq nga ko buñ la ci duyloo suukar nga def ca suuf sànq ko kon ñi ngi sànq waxtu mooy ne saabu waxtu yu dikkee nga waroon cee def defoo ci sànq nga ko bàyyi ko mu witt wala ñu ne la def ci fukk nga def ci juróom bàyyi walla ñu ne la julli ci nga dem toog di ko nelaw di ko waxtaan lu ci nekk sànq waxtu la lu nekk nag julli ñaa koy def bari na lu ñu ñàkk ci àdduna loolu moo leen ko xañ ci waxtu woo xam ne seeni noon ñoom seen ngànnaay li gën a wër mooy waxtu ci lañ am fonk ko fonk goo xam ne duñ ko sédd dara duñ ko bàyyee dara léppam lañ jël ci suñ jataay yi ñam am na baat yoo xam ne wax ne ci xaamuusu alxayaa al islaami waru ci won am ay mufradat la ay vocabulaire yoo xam ne waru ci woon am waaye dañ ko ciy gis ab grand place grand place lu muy tekki mbokk yi jataay boo xam ne ña fay teew duñ fa def dara ku ndax ku nopp jàpp ne noppi nga gis àdduna daal demal toog xool ku la romb nga wax ci moom dara yooyu jur na yu dul jeex ci ñun bari na xeeti fo yoo xam ne yenn yi bàkkaar kese la foofu la juddoo mag ñi ba ci ab gone yi foofu la tam juddoo wure dam ñu dem ba yokk ci mariage bëlot ak jox rek la woon ab garam lan amula def jàpp nga ne amuloo def sax nit sax amul du ñàkk lu muy def waaye yow yaa jàpp ne nga ne naa dem foofa jaaxal ko waxtu yi loolu yàq waxtu la bokk yi koo xam sa bopp xam li nga am ci temps ak yooyu ci war amoo jot goy dem ci garam la di waxtu wu nekk am na la war waaye wut sa garab bu sedd goo xam ne waxtu wu nekk nga daje ko su ngeen dikkee lu neex ngeen waxtaan bu jeexee ku nekk bu ngeen xalaatoon ci bis bi li la war wala nga xalaat sax yow bu fekkee ne dund ci doon barke barke boobu ki ko fàllu fi jaar ba am loola boo ci xalaat da nga xam ne amoo jot pour tokki ay garab yu sedd kon day baat yoo xam ne waruñ koo naan fa yooyu juddoo waru ci woon a juddoo musiba mi ci yokk nag léegi mooy écran mag ñi daan nañ am ay jot daan nañ am lu ñu si jot di ci di ko yàq waaye léegi nag ndaw ñi dañoo yàq dañ ko yokk ñoom parce que sunu noon moo ñëw indi ñu écran profité ci moom di di ko exploité ñoom ñu ci yàq suñu temps ñaata waxtu ngay gis nit toog ci ron écran wu télévision lu baax la am na ay émission yu am jariñ yoo xam ne man nga bu jotee nga dem seetaan ko jariñu ci dem am na ay xabaar nga bëgg a xam luy xew nga déglu ko waaye koo xam ne koy xëy suba ba jant bi so télévision bu mu jàpp bu mu tëj mu jàpp beneen fu muy seetaan ba neexatu ko mu tuux feneen loolu la yendoo mbokk yi lan moo gën a doon lu sànq waxtu li mooy am na lu la waroon defoo ko léeg-léeg nga fàttaliku daa amoon naa ren yu sàngam waaye émission bi sàngam moo tax ma fàtte ko yëgoo ne yaa ngi yàq sa temps yaa ngi lor saw yaram ndax jataay yàgg yi baaxu ci ne yàlla bindu nit ñi pour ñu toog loolu ma taxam na yaa ngi yàq say bët écran baaxut ci bët bu yàggee nga ci bët yooyu yëpp nga dajale ko di loru te fekk am na lu la waroon loo dundal loolu ñun ñu ne ñu ngi koy ñu bari ci ñu ñu ngi koy dund set ay xabaar mbokk yi doy na ci bu mënti ñàkk suba ngoon rajo yi ngeen xam yëpp xabaar yi dañu yi ñu baamu la yi ñu waxoon ci suba bu amee yi bees ngoon lay jëmaat mais dangay gis koo xam ne vingt-quatre sur vingt-quatre heure bu jot dana déglu xabaar bàyyi liggéeyam bàyyi ay waxtu yu ko waroon kon ma ngi sànq waxtu ci loo xam ne jëru ko ci waxtu léegi nag portable yokk ci tubaab yi ko defar gis nga ay fookaay lañ ci dugal yoo xam ne ñoom ñu ko defar amuñ kooku jot seeni gone yi nga xam ne mën mënaguñ dara pour ñoom la fii nag mag mu sax bi jaaw ngay gis mu tiim ko di manipuler rek suba ba ngoon mu ne ci portable du def lu am njariñ du ko wax teg ay karatam la bàyyi te tubaab yi ko def ñoom lañ koy doy mooy seen gone yi nga xam ne amuñ ku leen yor xamuñ li ñu ñu wutal leen bàyyi leen ko yow mag mu sax bu jàng nga ñëw gàddu gàddu gàddu portable métier chef lu ne nga dugg ci amul la njëriñ daan ngi ci sa dund looy sànq loo xam ne boo ko xamoon doo ko sànq loolu bokk yi lu baax lu mat a xam la ñu xam ne yooyu tubaab yi dañu koy naxe ngir ñoom ñu fas yéene ñum ñuy dund ci ñoom ndax jamono yi ñu defee loolu bàyyee la yooyu ñoom ña nga ca di réaliser dul jeex bis bu yàlla sàkk ñu créé lu bees loo xam ne yow rolu mustahlik rek nga doon kuy consommer rek mais doo jéem produire mukk lu bees génn na nga fexe lu mu ko jaay lu mu seer seer nga fexe ba am ñu lay gën di raw di la gën a jekku yow na ngay naan loolu ma xam la li am ñoom ci lu baax mën nañ ko jariñoo waaye la ca njariñ la ñuy jël la ca des nañ leen ko delloo jullit wur sa am jotu xëy soo ba ngoon di sànq waxtoom ci yooyu ñu ngi tànk waxtu mbokk yi ci loo xam ne une heure la laaj ñun ñu jox ko ñetti waxtu loolu day loo xam ne maanaam dëgg la lu baax la waaye manis na koo sottal ci wenn waxtu yow nga def si ñetti lu mel ni lan. togg aw jam fii ci senegal jigéen ju aaye bis bi amul benn soxla bu du togg ndax jaar na bis bi ñu yaatoo liggéey yooyu buñ la laajoon ne la tey loo ci liggéey nga ne togg naa ñu añ togg reer képp nga mën a wax te jigéen ñi bu ñu xëyee bi solo la yàq dund nit ki war naa mën a def loolu dafay leneen étudiants yi jàng nekk bitim réew di toggal seen bopp xam nañu ne togg du jër toxatu dañuy jàngi heure yi ñu war a jàng bu ñu noppee dikk danañ togg añ togg reer te duñu yàq benn programme fii nag jigéen ju aaye amul benn soxla programme boo ko mën a jox mu la tey dama aaye bàyyi ko kon dund gépp ci benn plat bu ñu togg xoolal maanaam bu ñuy togg añ man nag yow six heures du matin ba deux heures benn plat lay togg ndax loolu li ñu ko jox ci temps am na ko jurul xalaat waaye boo ko seetloo léew li ñu ko jox ci temps yooyu nit ki mën na fee togg lu ñu mën a jariñoo daf liggéey liggéeyal fi yàlla leneen baa boog mu liggéeyal fi àdduna leen waaye bu ñu ko toggee ba noppi bi ñu koy jariñoo ñaata waxtu lañ ci sàmm gis nga tubaab yi togg di lekk xalaatuñ al wajibaatu sariya li ñu tuddee fast food ñoo ko créé parce que pour ñoom nit amul bu lekk jotee gaawal fenn jël fa lekk di lekk dem di di liggéey di dem yow nag da ngay toog une heure temps wala deux heures boo fa jógee ne faaw mu noppalu tuuti waaw lekk boo ci jógee looy looy noppal ci noppal nga nekkoon jàpp naa ne mais da nga lekk bu noppee ñëwaat damay noppalaat trente minutes wala door liggéey kon kañ ngay kañ ngay jëriñ sam réew ñaata waxtu ngay sànq mbokk yi yooyu ñun ñëpp ñu koy dund waaye nañu xam ne ay défaut la ci ñoom yu ñu war a saafara buñ bëggee li mag ñi amoon nga am ci Sénégal bu koor dikkee dañ lay wax naa la koor la wax bis ko tax añ biñ ci añul rek parce que fu muy di jotee bu sëb yëpp noppi dañoo def dara damay dara lu añ ndax am na boobu important ndax añ am boobu importance boobu yooyu yooyu yu ñu war a xam la. Hmm? di ko bàyyi xel baax a baax kon ñu ko yàq. xew yi ñu am xew la l'islam moo santaane xew am na ci yoo xam ne moo ko wooye waaye ñu koy jox ci temps yooyu ngénte masala doyoon na ci sunna ku mën a fekkee tudd ma nga ñëw fekkee ko buñ noppee nga dellu ci sa liggéey su ma fi ñàkk su bëccëgee waañ bu noppee nga ñëw añ ci mais li ñu xewal ko mooy lan ku xew la ngénte ñëpp ngay wow ku ñëw sax nga mel ku ñëw it bëgg mu yandu ba ngoon ñaata waxtu ñaata nit ñooy sànq seen waxtu ci lool ci loo xam ne la la sunna digaloon mooy nga yëg ko boo mënee fekk si du ma fekke ko gis nga dëkk yi nga xam ne liggéey jett na mënatuñ ko gisutoo ko koy dajaloo di di ci ngénte fajar la ñuy tudd léegi dem seen liggéey sa benn benn xarit suba liggéey ñëw añ si ñam jot ñun nag léegi fu ngénte xew nit ñi noppi nañoo liggéey jàngale bi du jàngale tey tailleur bi du liggéey ndax sama xarit bi dafa am ngénte ba kañ ko kon taa boobu ñu ngi ko yàq ci loo xam ne dëgg la sariya ko digle mais digle ko noonu buñ ko joxoon li yeyoo li ci des danañ ko mën a jariñoo feneen bu dëj dikkee loolu la def dëj sax naa lii sunna moom dajaloo dajaloo dëj du sunna mbokk yi ñun ñëpp gëm nañu waaxi la dajaloo di jàng alxuraan def sarax nangam ñu ngi koy def rek de suñuy aada la mais laysa mina sunna fi shay bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci nit ko faatu sunnaas yonente bi alayhi salaam moo doon nit bu faatoo ci armeel lañ koy jàlle ci buntu armeel ba tey ji am na ñoo xam loolu la ci buntu armée la ñuy taxaw ku la jaar jàll la nga ñibbi waaye dajaloo ci kër ngir dëj laysa min sunnati nabi sallallahu alayhi wasallam te ñun ñëpp koy def ñetti fan bu xasee weesu dañuy tere jaale loolu mooy sunna ñetti fan nit ki bu faatulee sañ nga ko jaale tey ak suba ak ginnaaw suba bu ñetti fan yi xasee weesu dañuy wax ne fàttali musiba la te loolu jaaduwul ci julli ndax li tudd jaale mooy lan mooy defal ko fàttaliku ne aw tiis dal la kat waaye du yow la njëkk la dal muñal ba muñee loolu bu fekkee ne ñetti fan yi jaxas na jeex war naa fàtte war naa miir tàmbali yeneen dundu fii nag ba at muy dee nit ñi day jàlle te ñu ne la bu weesoo ñetti fan fàttali musiba la daganu kon ñun li ñu yàq ci temps xamul ñu toll donte dañ koy yàq ci loo xam ne daan mel ne dañ ci sàkk lu baax waaye baax nañu xam ne lu baax li ñuy sàkku sàkkoo ko ni ko yoon santaane mooy tax ñu mën ci jariñ kon yooyu ñëpp war ñoo xam ne di ci mel ay nit diw jaale siw ma wala ñëw na fay taxaw fi yënduwul defu nangam yaa ngi koy mere ci loo xam ne loolu la borom bi santoon kon yooyu yëpp yu mat a xam la ba ci mbokk yi daje nuyoo rek léeg-léeg ñu taxaw jox ko ci waxtu loo xam ne yeewu jàmmante boo xam ne doo xam fu mu yàq di laaj yoo xam ne ñëru la bëggoo sax ko la ci tam léeg-léeg ci jàmmante nit laaj loo xam ne soxla wutoon ndax amul lu njëriñ ma waral nga dégg nit di ko répété ay yoon yoon benn laaj mu laaj ko nangam yoon ana waa kër gi ana waa kër gi te Serigne Touba de radiyallahu nit toog na di wax di wax jàmmante mbokkam ne ko ana soxna ya mu ne ko laa taqrabu zina ana soxna ya la ko laaj ñun nag lépp ngay laaj lépp te doyoon nag nuyu nuyu bi gën a baax mooy bu lislaam asalaamaaleykum jàmm muy lépp soo xasee am jàmm nga lépp boo ko xasee wax ni wàcce nga ak moom léegi nag koo jaru ci santam mu ne la nuyuwuma kii la romb mooy wax asalaamaaleykum dong la wax jàll te pourtant la yàlla santaane la def li gën ci yow it la def mooy ñaanal la li nga xam ne soo ko amut mënu am leneen soo ko xasee mi dara dara dara ñàkkatu kon yooyu bokk na ci mat tax xam mbokk yi ñu xamee ku baax baax ñu ngi sànq suñu waxtu kon ci yoo xam ne naam yu baax la yu lislaam santaane la waaye dañ koy jox ci waxtu tubaab yi ko xam tubaab gis nga dañ ne bu ñu ñëw wax sax dañ ko tay nii lañ lay def nii romb jàll parce que pour ñoom seen temps dafa ëpp maanaam dañ koo soxla feneen yow nag da nga romb taxaw boo jógoon fii jëm ci marché bi bala nga àgg ne nga def waxtu ci ay kooku mooy jàpp ni dafa dara booba yaa ngi sànq waxtu te yëgoo ko yooyu yëpp man tam bàyyi xel boo ko baax baax lan moo war ab jullit ci waxtu gannaaw nii la waxtu amee solo. bi ci njëkk mooy na fexe ba jariñoo waxtu ndab la loo xam ne dañ la ko jox ngir nga def ci fexeel ba loo ko mën a gën a duy nga duy ko bul xeeb wenn yiw bul fàtte wenn yiw exploité waxtu bu mat sëkk loolu lañuy ñu alxuraan jàngaloon tey daa faaw ta fan sob adduna ñaari yi fi nekk jógee ci jàkk ja ak tool ya bu la nit gis nekkoo ci jàkk nekkoo ci tool tool nag maanaam yaatu la jublu mu wax tool rek mais bépp yëngu bu nit di liggéey ngir di ci am ngërëmul yàlla fii ci àdduna wala di ci mën a jariñ doomu adama loolu tool la kon jàkka ji ak tool yaa fi diggante bi leneen néew fa idaa faraxta fansa leneen ne ko fa idaa qudiyati salaatu fantashiru fil ardi wabtaxu min fadlillah fu ngeen dégg ci jàkka ji dellu leen ci tool yi loolu borom bi kon nit ki amul temps benn bu muy def soo nekkee ci tool yi nag ba coono jàpp la nelaw jàpp la nga nelaw boobaa nelaw yi jaamu yàlla lay doon ndax def nga ko fi nga ko war a def waaye du nelaw yoo xam ne nga naan ay doon wala nga naanum soow ngir bëgg mën a nelaw yooyu ku xam waxtu doo ci woyofal dara xoolal yonent bi alayhi salaam wax ju am solo ji mu waxoon boo xam ne l'islam rek ko am mooy yonent ko waxoon ne ku ci yor njëmbat ku ci yor njëmbat ñu ne la bis pété ngi taxaw nga yor ci sa loxo boo ko mënee ji balaa bis pété ngi taxaw na ko ji loolu li muy tekki mooy jëf bul séenu sax meññe ma bul neen lii ko duma ko def parce que du ma jariñ dara comme neen la buñ ne loon bis pété ngi ne taxaw mu ne la nga yor njëmbat ci sa loxo man koo jëmbët balaa adduna tukki fexeel ba jëmbat ko adduna dool tukki loolu yéen sa waxoon in qaamati saatu wa fi yadi ahadikum fasila fa in istataa an an sa taquuma saatu xatta yaxrisaha fal yaxrisaha loolu li muy tekki li mu ci war a dégg mooy ab julit wërta xeet lenn lu baax bul ne lii du ma gis njariñam wala du ma fekk njariñam lii wolof di wax njariñ loo fekkee loolu lépp bu yàqu la ab julit du ko wax julit moom du wax njariñ loo fekkee mais lépp lu mën a jariñ bi da ngay jëm ne warteef ba war na fi ndax même ku ca mën a jariñu yow pertoo boo fekkiwul njëriñul àdduna yi tuyaaba ji dana la fekk dafa dem. ab jullit bis penc lan lañ koy laaj. waxtu bokk na ci li ñuy laaj nit bis penc nit du faatu jëm fenn ci laaj ñu ko waxtu leen te yonent bi alayhi salaam waxoon waxtu ci la bokk ndax mooy sa sëneet jamono ndaw ji nga toll yonent bi salaam nee na bala ngaa jàll boucher bis penc bala ngaa boucher danañ laaj sa temps bi loo ci defoon bi nga nekkee gone sa sa sa cër yëpp nangu loo defoon ci cër yooyu. mooy xadis bi mu doon wax ne an umrihi fi ma afna sa dund gi loo ko jeexal dund gi ay temps la ay waxtu yu limité la ci loo ko jeexal borom bi nan la ko laaj ci loo ko jeexal kon kuy dund ku war naa bàyyi xel loolu bu ko defee waxtu daa am li tax waxtu am solo mooy dafa ay xaq yoo xam ne bu la ci raw mënootoo koo dabaatal xam nga dañuy wax ne am na xuquuqul waxti ak xuquuqun fil waxti xuququn fil waqti manis na ko dabaatal waxtu wi julli waroon na la julli woo ba waxtu wi waroon la mën ngaa dem fay ko loolu xaqun fil waqti la waaye xaqul waxti bu la xasee raw jeex na ñeenti wax ñeenti waxtu na ñoo am ci nit waxtu xéewal ak waxtu nattu waxtu topp yàlla ak waxtu mooy yàlla ci nekk ci xéewal am na xaq ju lu laaj mooy na sant yàlla ci xéewal boo ci nekkul di def loolu neex ba xéewal nga jeex ñàkk nga waxtu woowa te la xañ na la ko mënutoo ko ku nekk ci nattu na muñ soo nekkee di saali tëkk jàmbat ba wax ba mu ba musi ba ma wàcc xàq waxtu woo amee loon dem na te mënutoo ko dal yooyu yu mat xamee la euh, la Cheikh Ibn Afay doon wax nee na mu benn waxtu woo xam ne dana ñëw lu dul bu yàlla am na ci àq ju bees yoo xam ne nit ki amee na ko léegi nag nit ki nan ngay toppee sàggane àq yàlla ngir àq yeneen yu dul yooyu loolu Ibnu Atayla moo ko doon wax di soññi nit ñi ci bëgg ñu xam waxtu ak àqam kon noonu la waxtu amee solo mbokk yi nañ ko jariñoo kon jullit day jariñoo waxtu waxtu nan lañ koy jariñoo bi ci jiitu mooy fexe ba organiser yàlla mi la bind moo la njëkk jàngal organi organisé fexe ba nga nos sa waxtu lenn lu nekk bu joxee nga wutal ko wax nit ki jaadu woon na mu am benn programme bu xëyee wax ne tey de nangam nangam dinaa ko def loolu mooy tax bu jant bi sooyee nga mën a muhaasaba sa bopp waaw lim bala ngaa tëdd nga toog ne waaw la nga tëraloon su ndax dafa nga lépp tey loolu ci defut nga xam lu tax dafa ko waaye am na ci ñu bari ci ñun dañuy xëy rek ba jant bi so léeg-léeg duñ yàlla dara duñ defal adduna dara sànq bis boo ëllëgee noona kon faw waxtu ñu organiser ko boobu ma bi ci njëkk loolu la euh, imam Ghazali waxoon ne alayka bi tanzim wa iyaaka an taamala bi ma tafaqa kayfa ma tafaqa bal alayka bi tas bi tanzim fa bi tanzimi tazharu barakatul awqaat daa waxoon ne na ngay organiser waxtu ndax ci organiser waxtu ci la barke waxtu di feeñ loolu mooy lan mooy nga gis koo xam ne di diir su gàtt la dund liggéeyal fi yàlla liggéey bu ñuy soow gis ku dund lu ko ñaar ci deful yàlla dara kon kay wax wu tuut dafa am barke fii nii xamuñ fi taarix mag mu fi dund téeméeri at daanaka réalisation yu rëy yi fi dëgg yëpp nga xam ne ay siècle la ci àdduna dund mag ñi ko fi liggéey ñépp kenn dund ci téeméeri at kenn kon nosoon seen wax waxtu organiser ko fexe ba jariñoo ko teel a jóg ci leen war xoolal Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ñu bare ci ñun fii dangay dem ba am ñeent fukki at doo defagun dara jàppee si bopp ba gone bu ñu waxee nga ne gone la bu bu ñuy lim gone yi si bopp ngay jiital te am nga ñeent fukki at Sëriñ Tuubaa bi ñu am vingt-quatre ans lay fekk na mu tàmbali taalifi téere mu lay yinu sudóor nee naa nee naa ana charmat la ko def loolu ñaar fukki at ak ñeent la ci moom parce que ama chara la gane àdduna char daj kon vingt quatre ans la am bu ñu taalif téere boobu te xam ngeen taalif téere kenn du xëy def ko fii lay jaar ba def ko bi ci des mooy jamono yooyu ñoom bi ñuy jàng bokkut ak léegi si nga xam ne téere boo soxla mi sawet jàngalekat yaa ngi sawet ñoom booba téere bu nit jàng ci àll wu ko bind ñoom booba téere bu ñu jàng ci àll lañ ko bind Sëriñ Tuubaa ñaar fukki at ak ñeent ci la taalif mu lay nu sudóor soxna bu sa kenn ku na xam na ne fanweeri at ak ñett la def ci kaw suuf kon dund gu barkeel mooy li nga xam ne moo am solo kon fan gudd mi ngi ci jëf ju yaatu waaye nekkul ci at yu bari gannaaw li ñu cërale woon ci waxtu buur na ñi ngi ñaan rekk suñu borom defal na ci ak dégg ak ak topp te mu nargal na ci liggéey Sëriñ Tuuba ba sunug yëngu ak sunug dal lépp nu mën koo jébbal sëriñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. ñu ci wàllu sëñ Tuubaa nag sëñ Tuubaa moom ba mu jógee dafa ne dañ ne yàlla wuti ko yàlla daal ko ne joxoñ rasulullahi ni ko ma nga nee mooy sama bunt mu dem ci rasulullahi mu ne ko taay ma yóbbu la ca moom de mu digal ko li mu wax bindir yëpp dal la ni yàlla um ala muhammad waxaale ni muhammad bi ba mu ko yóbboo ci yàlla yàlla wax ko dara la mooy wallahu wa rasuluhu ahaqu an yurruhu in kaanu muminina mu daal di noppee ànd ak sagom daal na dana na ngërëmal yàlla di ko wut yitteem jëpp mu jëme ko ci amatul jàmm guddi amatul jàmm bëccëg boo leetu koog lenn àndu sa kenn ko sàkku rek saa boo xam ne bëgg nga koo wan leneen wala nga bëgg wax ak moom leneen dax lay tontu ne de lastu am li si waa maa yilu li rabas samaawaati wa rabbal ard yooyu tànk di ko doxee di ko doxee ba ne taru lii ci ngërëmal yàlla ridwanullahi taala akbar bi nguur nga béy mu daal jóg taxaw wax ca kaw daal wax ne man la mu yëkkun xam ni yar laa fal kër yi ral yi am ni ridan lay lay seeri kay loolu nag bu ko waxee kenn du ko weddi ku nekk dana ko mën a nangu ngir jaamu bu yàlla buy jaamu boromam di ko jaamu di ko jaamu si naw mi si ba def rabbi ndaa sëri gëloowu xal bi yu dëbbiru aayan tuuti suri hikama kooku lu mu wax ci ngërëm lu am ci diggante moom borom ñëpp nangu wallahi kon moom di jëmo yàlla ngoog si nana fàttaliku dénkaane boo xam ne Sëriñ Tuba daana ko dénkaane ak wax joo xam ne daana ko wax buñ ci wét moom dafa daa wax ne saa bu ngeen demee ba melaw adduna bëgg leen a génn ci yàlla ak yonent bi bu boobaa dal liñ ciy delloo seen bopp fa saasa te bu leen ko wàcc loolu moo ko daa wax moo daa wax it ne nit ñi na ma ñoom ba noppi ci fii mu ne dëkkas fa nu naa ni gis wax naa ñu dégg bind naa ñu jàng kon nag mu daal dénkaane dooru jëm nag ci lu muy war a waxtaane wala jamii'a muslimina turra جميع المهلسين زاد